bu baax yéen ñu safoo Dakar Buzz di ñu si topp saa su ñu ñuy am nag mbégteeg ca waxte tamit di janook yéen euh, gannaaw ba ñu tam xaritee si jàmm ak salaam euh, di baal ñëpp ak baal ñëpp ak gis ngeen suñu spécial tam xarit ñu paas woon ko ak maman Selbé Ndom gannaaw nag bañ ko amalee si jàmm ak salaam ñu ñëw nag seet si ko sekk waxtaan wu am solo lool xam naa ne laata euh, ñuy door dama koy bàyyi mu nuyoo ak yéen ñi nga xamante ne ni yéen a koy seetaan ñu daal di rek dugg si waxtaan bi maman Selbé nuyu naa la bàyyi la nga nuyante ñu waaw soxna Amine maa ngi lay delloo nuyo bi di la sargal. di wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. ñu ngi sant yàlla bu baax di ko sant bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di gën a yeesal suñu njébbal ci Cheikhul Xaadim. di nuyu nag beral nuyoo sëñ Muntaxa Mbàkke moom mi nga xam ne moo taxawal cheikhul xadim ci àddina bi di ko ziar di ko ñaanal mu yàgg fi lool mbàkke duñu mës a fàtte sëñ Moustapha Sy as-Siddiq wax ko tu dëgg bi borom xolu jamaa bi ki nga xam ne macha allah. jàmbaar la surtout sëñ Babacar Sy bi man Selbé Ndom maa ngi lay ziar di la jox sa waaye di la ñaanal gudd fan gu ànd ko wér darajay laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah bi nekk sa dënn bi di di wax gaay rek wa ma tashauna illa an yasha allah du nuyu waa adduna bi macha allah nuyoo baa ngi noonu am na solo lool xam naa dañu koy door rek ak sa sortie bi nga def bés yi euh, ci euh, Wally Ballago Seck chanteur du peuple mm. euh, yaa ngi wax ni dafa am benn jinne bu ànd ak moom jàpp si loxo bi mm. ñu gis ba nga génnee donte sa waat nga sa loxo si kaamil teg ko si waat waaye teewul critique yi bëri nañ si lool naka nga ko dundee waaw ni ma ko dundee mooy sant yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ndax oto ba ca kanam moom la ci oto yi ci ginnaaw di ko di corne pour bëgg a toll fa mu toll loolu la rek suñu borom moo yóbbu selbe mhm. ba bu waxee a ñëpp déglu ko mhm. amuñu nag benn intention mhm. amuñu benn yitte di wax waali lii wala keneen walla keneen li ñu gis rek lañu wax neexaluñu waali man Selbé Ndom xaw ma kër Waly sekk ma jàkkaarloog caméra bi xaw ma kër Waly Seck boo ma joxoon ay milliards man mënuma laa yóbbu kër waali Seck Wally sekk mësta làmb ci poosam ñaar dërëm may ma ko kon lu tax may def yoolu pour lan ban intere laa ci am loolu maa ko gis téel ma micro bi yow xam nga man jullit laa mhm. li ma am mooy kaamil mhm. man doomu jullit laa bokk ci xeetu wàllu bokk ci xeetu ceddo waaye man bii laa préféré bi ma fekk sama baay nekk bi ma fekk samay maam yi wala yu nekk muy bii ku ko gëm nag xayrun ku ko gëmul xayrun man Selbé Ndom tey laa mujjee wax ci wax jooju man Selbé Ndom maa wax billaahi wallaahi watallaahi darajey laa ilaha illa muhammadu rasulullahi man Selbé Ndom gis naa Wally Seck jinne ju jigéen moo téye loxoom ndey jooram bii tikku jara bii lii mooy tikku jara ci poignet bi mm-hmm. muy ànd ak moom di dox di dem mm-hmm. li nga xam ne mooy sauvé Wally man Selbé maa ko wax billaahi mm-hmm. wallaahi watallaahi Wally day déglu ay nit du mbox génnloo saraxu benn sondeel ndax gisuma ko soxloo ma Wally woo ma soxloo ma juróom billaahi wallaahi watallaahi ñaanuma ko dara waxuma ko pour dara loolu la ma yàlla won moom laa wax ñii wax nag ay waxkat lañu rek nañ wax man gëwuma leen xam nga ku ma gëm laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi man Selbé Ndom maa ko wax mhm. maa ko gis loolu laa gis waxuma ko nag pour dara mhm. nit ki boo gisee dara ci nit bul ko iñaan man Selbé Ndom billahi wallahi watalahi damaa njëkk gis Wally Seck ci taatu géej mu sol jasineer bu vermante mhm. def nii loxoom ñaari loxoom di gestu nii géej gi loolu lu muy firndeel billaahi wallahi wa tallaahi macha allah Ablaye Wade ba ma gisee maag moom ñu dagee ci taatu géej dafa amoon miir booba jëlagul nguur gi hmm. mu dem gis nga ba miir boobu daanoo ci la Ablaye Wade jël nguur gi sooy xool incha allahu rabbi ah am naa yaakaar ci yàlla ne waali dina dem ba ëpp ab Ablaye Wade wërsëg ndax ab Ablaye Wade dafa amoon miir mhm. waali nag dafa taxaw nii ci géej gi wan ko ginnaaw di ko gestu di ko xool géej kenn daa xam fu mu toll mhm. a ama ñaan waali ñaar dërëm bu doon loolu ma jël sama taxi mhm. fu ma laaj ca kër waali dinañ ma fa yóbbu di lu tax may dem kër waali pourquoi naan lan am na ñu naan waali woowu ko ku leen wax ne man yoruma numéro waali man su ma bëggoon dem kër waali tey billahi wallahi watallaahi tey jii balaa maa tëdd danaa mhm. danaa kër waali mhm. waaye loolu taxul ma di ko wax mhm. na nit ñi gëm yàlla xanaa ku jël loxoom teg ko ci alquranul karim yem ci suratul xaj gis nga yaa ayuhan naasu duriba duriba masalun fastamiu lahu min dunillahi laa yaxluquuna hmm? fa laa yem sax fa laa yem fa nga yem voilà na ñu xoolal mhm. ñi wax mhm. nañ takk seen rajo di wax rekk temps mhm. boobu la ñu am man awma seen jot yàlla laa gëm yenent bi sëriñ tuubaa xaadim rasuul teg leen ci qad aflaxal muminina allazina hum fii salaatihim xaashiun gis nga yonent bi man mënumaa am lu Seydina Mohamed amul man Selbé Ndom xalaatuma ko sax soxlawuma ko sax pour kenn du ma critiquer non aw ma maqaam boobu soxlawuma ko sax foog ngay dégg am Selbé indi Selbé am Selbé indi Selbé man loolu moo may neex lépp lu ma wax nag teg sama loxo ci kaamil billaahi wallahi watallaahi dëgg la maa gis loolu ci Wally Seck mhm. du ma ci comment du ma ci waxat mhm. loolu leer na aussi euh, ñu naan sax euh, boobu ba tey yaa ngi wax si Wally Ballago Seck mësulaa tontu dangaa war a bay doomu jàmb ji aussi donte sax lu baax nga ko gisal xam nga man jàpp ma waale mhm. nga ñi koy dungur di dem ci moom mhm. mu làmposam bi di leen may ah mhm. ñoom ñoo ñoo war a bàyyi waale Selbé jàpput waale Selbé demul kër waale waale mës tamay Selbé ñaar dërëm waaye li ma gis. Mhm. maa ko wax man Selbé Ndom maa ko wax maa ko gis maa ko wax. Mhm. xoolal boobu mooy bu neex bi. maa ko wax. xanaa yàlla yoon yónni Jibril alayhi salaam mu wàcc mooy tax lu ma gis ci wàll duma ko wax. maa ko wax. noon yi nañu dal nañu teey ñiy jéem ci wàll nañ ba eh waali yàlla la yonent bi sëñ Tuubaa point. point <laughs> loolu leer na nañu euh, gis nañu aussi yaakaar naa seetaan nga ko sur Sen TV ñoom Nana Aidara dal nañu la si bu baax naan euh, pourquoi boo gisalee nit doo ko woo wax ko ko lu tax nga koy wax publiquement ak balaa ñuy gëm ne yow ak say naataango li ngeen di woote mu ngi si yéen ngeen jëlee fi corona bi nga xamante ne nii mi ngi si réew mi. est que ñoom takk nañ masque fa yem. ba leen seetaanee keroog ñu wax loolu naka nga réagiré. dara tamit yàgg naa ci liggéey bi 2009 laa commencé liggéey 2012 la ma nit ñi xam. yàgg naa liggéey. loolu torojew ma sax aw ma ci problème. mais ñoom gisuma ñu takk mask te dañ ko war a takk. ah nañ xool rek. dama leen laaj point d'interrogation gisuma ñu takk masque. Mm-hmm. Youssou Ndour nag mosoo ko gisal dara. waaw Youssou Ndour moom euh, bi ma nekkee xale. Mm-hmm. c'est que euh, xëy na li ma xam tey boobu xawma ko woon. Mm-hmm. wallahi yàlla seede na ko xaw ma kër Youssou Ndour Youssou Ndour mosuma may ñaar dërëm. ñaari artistes yi la ma yàlla woon fii ci Sénégal. nga xam ne suñu borom may na leen. nit ki nag waroo soxor ci yàlla may nit. bul ko soxori tey soxna Aminata su ma gisoon ci yow dara su fekkente ne mënuma laa gis dinaa dem foo xam ne su ma waxee yow di nga dégg nga xam ne soxna Aminata mii kat suñu borom jagleel na ko dara. et pourquoi soxor bi leen yëpp soxor la ah. leen yëpp soxor la. booba dama gis man ak Mbaye Guèye ñoo nekk ci benn kër. Youssou Ndour ci biir jékki-jékki am ñuy ñëw billaahi wallahi watallaahi boobu xale laa maa ngi koy fàttaliku xam nga alxuraan kenn di ci teg ci zéro mhm. man sekk dugalu Wally Seck dugaluma àjjana Youssou Ndour dugaluma àjjana ma leen yàlla rek laa yaakaar ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci laa ko ajee mhm. man ak mbay gee fee ñu ne ko na làqatu ci kaw garab màngo mu làqatu ñoo ñëw laajte daa fekkoon ma yore sama sumb di fóot ci li ma ko yàlla wane woon mhm. billaahi wallahi watallaahi ci ko nëbb xool gisuñ ñu dem loolu yàgg na ay jamono aussi ma gisaat ko mu yéeg ci kaw garab Youssou Ndour moom xaw ma lu koy jaaxal ci wàllu àddinaam mais du du alal mukk ci àddina hmm. man Selbé maa wax loolu ba ngay am ñaata at nga ko gisal loolu man damaa judduwaale lii nee naa la sama kër amul téere téere buñ sàccul dugal ko fii man samay doom ba ma juddoo ba tey musuma leen takkal téere ñaar doom yi ma am musuma leen takkal téere musu am man sama bopp sama ndigg lii amul téere woon naa la ko keroog bi nga fi bi fi ñëwee. dëgg la kon kay waaye yomb na ak yomb. Mm-hmm. Mm-hmm. man dew ma fenn maa ngi sama biir kër gi yomb na. Mm-hmm. waaye nag lu yonent bi amutoon Serigne Touba amu ko Seydi Hadji Malick amu ko nit ki mënooy dund kenn du wax ci yow mënut a nekk. waaw. loolu leer na. Euh, takkoo téere takkaloo say doom téere wax yi bëri na loolu lan moo lay aar kon. laa ilaha illallah lu ma wax léegi ku may aar xan dudul ki ma bind ki ma sàkk ñaata at maa ngi wax maa ngi dégg ñu naan sel selbe jeex na jeex na jeex na man maa naanoon benn tee <laughs> bu ñuy wax Katrina Catherine na ngi dem ci pharmacie Catherine hmm. laa naan tee dama amoon yaram commencé amee ay tension yeneen yu ma xamut du ma mën a yéeg escalier mm-hmm. tu vois ma laaj sama pharmacien mu ne ma am na benn tey boo xam ne boo ko naanee di nga wàññeeku ma jënd ko naan ko nag na ma ko naanee nag da moom mu ëpp dama mm-hmm. ko naanee ëpp ndax dama war a jël benn naan ko par jour may jël deux di ko naan quatre fois par jour mm-hmm. mu ëpp nag lancé ma ba mu dem ba ma loof loolu dee ma dal te alhamdulilah maa ngi récupéré si ndànk-ndànk macha allah voilà macha allah mi ngi noonu euh, bu ñu noppee aussi si côté boobu gannaaw ba ñu tam xarit ak jàmm ak salaam fii lañ ko passé mhm. euh, waxoon nga ñu la nga xamante ne nii gis nga ko ci asamaan si donc euh, la ñu leeraloon mais aussi bésu tam xarit bi mhm. donte amuñu woon temps pour xaar lan nga siy gis aussi moo tax dinaa la ko laajaat tey aussi lan nga gis jour de tam xarit alhamdulilah alhamdulilahi rabbil di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ah di sant sëñ Tuubaa mi nga xam ne mooy suma sëriñ xam nga jamono yee nee naa leen ah, keroog dama tiitoon gis asamaan si di mhm. sotti deret nit ñi tëdd ma daal di yeewu rek feebar daal di daw dem yéeg ci kaw jël sama xar man su gisee lu ma war a def mhm. te am ko duma xaar mhm. damay daal di daw loolu nag néew ma leen tey la neew ma leen suba la néew ma leen ginnaaw suba la yal nañ ci yàlla musal nag may waxal doomu aadama yépp ne alhamdulilahi rabbil alamin xam-xam du ci garambub juróom-ñaari garambub xam-xam du ci juróom-ñaari tagal xam-xam du ci périg bu rëy xam-xam ci deret lay nekk sa yàpp wi ànd ak yax ak deret ak ndox xam-xam fi lay nekk suñu borom moo koy sol nit leneen luñ ci boole rek dañ ko cee boole waaye bokk ci dégg ngeen ma mhm. bokk ci mhm. dégg ngeen ko mhm. asamaan si laa gis keroog tamxarit ba ci guddi gi macha allah keroog suñu tamxarit neex na kan nga fi mës a dégg fii Sénégal mu ne asamaan si nàngam kan nga ko fa dégg xam nga lu tax duma beew sunu boroom dafa ne laatam suuf fi la àddi maraxan sama suuf si bu ci dox di tiitaru mhm. moo tax du ma beew kenn mësta gis Selbé fa guddanam man la maa sañu ma ko mhm. ndax li may toog nii yàlla la neex may toog ci fa fauteuil bi yàlla la neex may xool yàlla la neex may wax su ko neexul léegi bu ko neexoon balaa seconde rek ma woo kon yàlla moom moo may sàmm yaay booy mhm. li may tëdd ñu dama ko woon kan la yàlla may woon am na lu ma dégg ñu wax day wax loo xam ne du am waaye li ma fi jot wax day yaakaar naa sant naa ci yàlla bu dee benn fan sax wane naa résultat bu leer wax loo xam ne ñu wëggut jafe na fii te suñu boroom may na ma ko sant yàlla kon su ma dundee ba suñu boroom may ma ma tëdd di nelaw suñu borom wan ma asamaan si wan ma li ci nekk damay gën a sant te xam na suñu borom maa ngi âgé mais suñu borom mi ngi may gën a may ndax mosuma mm-hmm. fee wax asamaan si léegi yàlla may na ma maa ngi tëdd di gis li xew ci asamaan si macha allah mm-hmm. yàlla maa ngi koy sant kon kooku moo may aar mm-hmm. dama gis ci asamaan si billahi wallahi watallahi darajey laa ilaha illa allahu da nga ne dangaa ñëw toog ma dugg ne la ma ñëw damaa dem jàpp ba sel mhm. billaahi wallahi wa taala damaa gis asamaan keroog tam xarit. Mhm. macha allah macha allah ndox mi nekk ci asamaan si ñetti hélico di ci daw def fi géej gi jóg. Mhm. macha allah maa nga taxaw ci suuf ndox mi di ma dal macha allah keroog ñun am nañ tam xarit yenn saa yi ñun. ak ñoom yenn saay yi duñu bokk événement. Ah no ñoom mën nañu def seen événement démb ñu ñu def suñu événement tey dafa mel ni màkka yenn saa ñu def événement. ñun le lendemain ñu def événement mais alhamdulilah tam xarit moom neex na. Mhm. macha allah fête la woon. kon ñoo ko bokk. macha allah sant yàlla te loolu duñ ko iñaane nit ñi wow ma kenn ah. billahi wallahi wa taala ma kenn xanaa neex na ku mu neex gëmal Selbé ku mu neexul bul ko gëm bul xool samay vidéo yéen ñi may jël da ngeen ma fay dara man aussi fay ma leen dara waaye ku mu neex nga xool vidéo Selbé mais sant yàlla bu baax jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat xéewal la ci Selbé macha allah macha allah xéewal la ci Selbé loolu neige mm-hmm. yi niir yi ku ko xool bëccëg niir yi ku ko xool bëccëg gars yi euh, sama musóor bii wadd nañ ma si jéggal mm-hmm. nga xam ne du sama sago xëy na su may wax aal bi moo tax mm-hmm. mais du dara lu suuraale loolu dëgg la ndax euh, respecté naa ni lii rek laa am man yàlla rek laa am dëgg la fii la ñu mën a liir gis fi yàlla gis fi ci Allah fii la ñu mën a liir gis fi Muhammad gis fi duniyaa wal axira kon maanaam lii danga ko foog mm-hmm. jullit nag li mu mën mooy teg ay loxoom jàpp ba set ne billaahi wallaahi watallaahi utuma ci bës li may gis laay wax mm-hmm. utuma ci bës macha tam xarit moom la ñëpp àdduna bi yëpp nañ wax alhamdulillahi rabbil alamin macha allah bu suñu borom am na solo. di dem dëgg ci seen biir kër yi dafa sotti ay gàllaaj. li mu ko fiy yóbbu dara. dëgg la. wax nga ko léegi eh, yaa ngi naan na nit ñi xoolaat doxalin yi bàyyi di jël ay garab di koy yu def si ay nit ak neneen ndax genre yu mbir yooyu aussi yow mësul a arrivé. ko mmh. loolu mooy ñàkk gëm yàlla loolu loolu dinañ ci ñëw. Mmh. waaw tey moom euh, la suuloon suulu woon yaakaar naa li nit ñi xamutoon. tey jii ci Dakar Buzz fii incha allahu rabbi lay xewee. ci mhm. kattanu yàlla waaw. Mhm. léppay leer. léppay leer d'accord macha allah.